Euh, Matar Ndiaye la euh, moo représenté coordonnateur intersyndical bu hôpital bi nga xam ne si dafa ànd ak SUTSAS ak SINTRAS ak euh, la CNTS ak SDT 3S mbir mi nag depuis ay altine ak ki àllarba ñi ngi toog fii di observer ay sitting sitting yooyu nag li ko waral mooy ay jafe-jafe yu jox sunu diggante ak direction bi mu dikk ci jafe-jafe yooyu ñetti poñ bi ci jiitu wax nañ ko mooy problème mu heure supplémentaire yi danoo gis ni heure supplémentaire yi ni fay contractuel yi néew na lool ñu ne woon nag directeur danoo bëggoon ren deux mille vingt deux bi mu yokko ko substantiellement ñaareelu poñ bi mooy li ñuy wax indemnité de grade danoo bëggoon maanaam ñu yaatal ko ba liggéeykat yëpp nekk ci hôpital bi am ko parce que dafa am ñun ko jox am ñun ko xañ ay ati at léegi nag ñooñ ñu ko xañ nag tey ñoo taxaw pour ñu rétablir leen ci seen i droit donc loolu tamit nekk problème muy généralisation indemnité de grade bi bi ci des nag mooy dafa xëy génne not service créer ay service yu bees mais aussi nommer ay médecins euh, ay chefs de service toftal ci ay adjoints chefs de service mais ku jël service def fa chef de service def fa adjoint chef de service mais aussi mais war nga indi major de service bi pour service bi mën a mat donc loolu tamit nekk jafe-jafe donc loolu mooy ñetti poñ yi nga xam si boobu ba léegi si moo dox suñu diggante ak direction bi loolu nag ba mu amee ba tey en tout cas am na bonne volonté yi nga xam si ñu ngi ciy jóg di ci dox di ci wax gis nañ gouverneur de région. gis nañ président conseil d' bi mais aussi am na association boo xam bi moo regroupé retraité ci hôpital bi ñooñu ñëpp boobu ba léegi si ñi ngi dox suñu diggante ak direction bi ngir indi ci saafara ngir dox ci tànku jàmm ak docteur Malick Gueye aussi gynécologue ci hôpital bi mais ni nu gisee mbir mi moo di ne boobu ba léegi si wax fa dëgg yàlla directeur ak direction dafa mel ni fi ñu toog lan toog en tout cas bëgguñu indi saafara ci mbir mii nga xam si moo dox diggante liggéeykat yi intersyndical bi ak direction hôpital loolu nag su fekkee ni situation bi dafa nar a continuer nii yaakaar nañ ni siti ñii dinañ ko weesu ndax en même temps waajal nañ suñu bopp déposer sunu plateforme bu ànd ak préavis de grève préavis boobu nag yaakaar nañ ni fii ak le vingt 28 janvier préavis boobu dina egg un mois su boobaa nag léegi doonatut ay série de sitting mais ay série de grève lay doon carrément yu ñuy décrété nga xam ni suñu xëyitee dañuy banque suñu loxo génn hôpital bi en tout cas pour wane ni en tout cas direction bi ñu dénk hôpital bi taxawuñu pour saafara li nga xam si mooy jafe-jafe liggéeykat yi parce que loolu tamit moo tax ñu andi leen fi mooy bu jafe-jafe amee ñu fexe ba loolee ñu seet nun koy saafara mais loolu amut direction mi ngi toog fi mu toog ñu nit ñi ngi toog fi nu toog proposition yi nga xam ne si moom la génne ñun proposition yooyu ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg te duñ ci mas a ànd parce que it nit ki du toog ci intérêt ak njariñam bëgg a xañ ci des ay intérêt ak ay njariñam yaakaar naa ni loolu du équité moo tax nag yaakaar naa ni mbir mi su fekkee ni en tout cas ci siti ngi saafarawut étape bi ci topp moom wax na leen ko mooy le vingt-huit expiration délai préavis bi ñu mën a dem carrément en grève donc loolu moo tax tey wax dëgg yàlla camarades yi mobiliser waat taxaw temm ñoom ñëpp pour wane ni ñun ñëpp benn la tey bëgg-bëgg benn la pour que bu saafara amut li ci war yëpp dinañ ko def et fi ñu toll it dañuy interpeller le ministère de la santé parce que après tout moom moo ñu jaboote su fekkee ni directeur ak ñi nga xam si ñooy liggéeykat yi déggoowuñu ba mbir mi nar a egg fu mu war egg nag. dañuy interpeller le ministère de la santé pour que nag mu ñëw en tout cas xool mbir mi saytu ko ba xam lan lañ ci war a doxale ngir jàmm dellusi ci hôpital bi ndax malaat yi sonn nan suñu ñëwee altine duñu faju suñu ñëwee àllarba duñu faju te loolee jekkut jaaduwut te loole lépp dañuy tenir responsable la direction de l'hôpital parce que ñoom ñoo indi jafe-jafe ba mu yegg si fii mu yegg si tey donc loolu daal mooy li nga xam si moo waral ndaje mi moo waral taxawaay bi donc di sant encore assemblée bi ak mbooloo mi yëpp ci mobilisation bi pour wane ni camarades yëpp adhéré nañ ci xeex bi pour que ñu am satisfaction à cent pour cent ci ñetti poñ yi nga si moo tax suñu diggante direction